cas li am ba des daal mooy bëri na ay kilifa ci réew mi yoo xam ne génn nañu àdduna ci atum 2020 bi nag mort naturelle wala covid 19 moo leen yóbbu barsàq yéen a kaay gi de la Soleil nee na Mamadou Niang génn na àdduna Sénégal nag ñàkk na ab soldat boo xam ne maanaam consensus rek moo ko yitteeloon maanaam waxtaan ba lépp na ko rocc yéen a kaay gi tamit xëy di ñu tàgge yi Idrissa Diallo mu nekkoon homme de conviction ko amoon ay principe nit ku sincère dëggu woon ci ànd bi nga xam ne àndoon na ko ak Khalifa Sall nekkoon ci ko jégi maanaam ci opposition bi yéenekaay gii di L'As mu ñu xamal naan ñu ñi nga xam ne ñooy ay kilifa ci réew mi di ay VIP ni ñuy faatoo jamono ji ñoo ngi mel ni ay weñ loole nag lu doy waar la lu garaaw la loo xam ne maanaam tiital na gaay yi yéenekaay gii di Le Quotidien nee na général Mamadou Niang mi nga xam ne moom lañ dénkoon dialogue politique bi génn na àdduna mission jeex na yéenekaay gii di Réew mi Quotidien nee na en tout cas njiitu mi di président Macky Sall bay boo mu def ndànk ndax nag song yi nga xam ne ñoo ngi ko koy song fu ne lay jóge te song yi nag jógewul ci opposition bi ndax fii ba grande mosquée bu Dakar la ñu gis ñu song Macky te am na yeneen sénégalais yoo xam ne ñoo ngi toog fi ñu toog maanaam heure bi dafay jot rek ñoom ñëpp ñu dajaloo def ab dank jàkkaarloo ak Macky Sall yéen kaay gii di laas nee na am na ñenn ñoo xam ne mer nañ ba maara détail yi mooy Tiwaawoon Tiwaawoon mer nañu lool lool Macky Sall li ko waral bokk na si ñu bari ñoo xam ne jege woon nañu xalif général des Tidianes bokkoon ci gouvernement bi Macky Sall da leen a tëbal da leen a dàq loolee moo merloo Tiwaawoon ak leneen loo xam ne merloo na leen loola mooy nga xam ne dafa nekkoon ambassadeur Macky Sall dàq ko yéen a kaay gii de la Tribune nee na njiitu réew di président Macky Sall jamono ji ma ngi ci guddi gu bët séddagul la maanaam song yi fu ne lay bàyyi ko dañu ko wër ndomba ci benn bokk yaakaar ak ci biir APR ndax maître Moussa Diop fenn fu nekk ma ngi fay songee Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu mandat bi ci biir APR Aminata Touré mayul lenn Macky Sall journal bi nee na bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi ànd ak Macky Sall nekk ci benn bokk yaakaar ñi nekk ci APR ànduñu benn yoon ngir nag Macky Sall sampan ndëndama ngir nag laaj beneen mandat ci réewum Sénégal réew mi quotidien nee na lu jëm ci wàllum vaccin bii nga xam ne nee nañu dafay faj coronavirus bëri na askanu Sénégal yoo xamante ne bëgguñu vaccin bi waaye nag am na ay xibaar yu doy waar yoo xam ne collectif ñoo lànk daan nañu ko si génnee nee nañu Macky Sall dafa bëgg imposer askanu Sénégal ngir ñu ñàkk par force vacciné wu par force loole la Macky Sall bëgg imposer askanu Sénégal ci weeru mars atum 2021 bu ngeen gisee nag Macky Sall di soppar ñi loi 1960 dafa bëgg imposer askanu Sénégal état d'urgence ak état de siège ngir nag wàcce ay takk deram ngir ñu mën koo jëflanteek askanu Sénégal yéene kaay gi di réew mi ko di cee nee bii nga xam ne mooy loi 1960 ak soppar ñi gi nga xam ne ñoo ngi yi nga xam ne ñenn ñu njortu nañ ko si loolee tax na Mamadou Dione mi nga xam ne mooy directeur général bu COSEC andi na ci ay explication ci modification bi daan nay wax ne am réew am na foo xam ne bu fa tollee état bi dañu ko war doole dooleel te loolee nag démocratie bu baax la état de siège ak état nga xam ne moom la ñuy dégg amul lenn loo xamante ni dina ko yàq ci askanu Sénégal ci seen liberte yéen a kaay gii de la témoin nee na atum 2020 bi en tout cas bëri na ay njombe bëri na ay giraawali yoo xam ne xew na ci réewum senegal mbëkk mi mbas mi mbënn mi yéen a kaay gii di direct news xëy nag di ñu wax lu doy waar doy waar nee na Pierre Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon ministère de l' économie te Covid 19 bi daal di koy faat Pierre Ndiaye moomee CTO la nekkoon waaye nag gaz oxygène daf ko manqué woon loola yéex nañ koo jël yóbbu ko hôpital principal jamono ji war nañu see mën a ubbi ab enquête portable am sax mes ne menteñ ca hôpital baar du Quotidien nee na lu jëm ci wàllum dugal wàllum góor jigéen ci njàng meeg njàngale mi Macky Sall la ñu jox xor bi baaraamu tuuma ak ma du Talla mi nga xam ne moo yor njàng mu diggu doomu mi yéen a kaay gi nee na ñoom dàmboo ca naqaru nañ ko bu baax a baax Thierno Alassane Sall nee na am na lu nekk ci réew mi dañu ko war a lijjanti ndax réewum Sénégal dafa nekk ci ay loxoy sàmba boy maanaam ay mafia mafia bu ndaw la réewum nekk ci seen loxo te loolee lu garaaw la enquête yéen a kaay nee na aménagement du territoire état bu Sénégal